Cause it, cause it. Cause it. Aye. FKL Devil, bana labal maa. FKL Devil, bana labal maa. FKL Devil, bana labal maa. Tay bisu betek Devil. gasal sabax reyal saxar fesal motul waxtaan ñëppay dibi féppay saxaar gëj nañ gisee fam ñoo waxtaan nee naa la tey du bisu xuloo ñëppay juboo dem fuñ juddoo dugg ci kër yi nuyoo xale yi niroo amul juróo jonga ak feeling la jigéen yóbbu seen goro yi añ nga ni tàggalu mes wala jëwa yi watu eti foor ñetti abdu draaku gën a metti poor nañu seeti mbokki poosi xaw na foor joxe ndéwél na li baal suñuy toor na bu déwél bi daqaat bu ren ñu fekke ko ay at di dem amul solo ndax ñun ñëpp a yem maa ngi ñaanal yow nga am ma dellu di tuur bal naa la bal naa la baal ma ah efekel déwél bal naa la baal Yeah, assalamu wa warahmatullah. taala wa barakaatu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant len char len magal len ndamo waxtaan vite fait bu juste euh suivre le discours de Sonko waxtaan Sonko mais je pense que Sonko il a vraiment résumé les li nga ni nit yu positif yi nit nga ni seen mooy qui Sénégal jim kanam Sénégal avancé Sénégal dans son ensemble nous dox émergence donc nous, nous, nous, nous, nous, nous, ils sont de bonne foi euh, liñ fi jot nous, live loolu la nous, sommes rek c'est la même chose comme quoi que euh, Pastef dafa am règlement malgré que ma je suis Pastef mais je sais ni parti bu nekk un règlement intérieur un règlement un objectif un point de vue ben l'école du parti philosophie euh, na courant de pensée donc parti politique yi bu mu parce que le libéralisme, libéralisme Sénégal créé un ko et le libéralisme il am lu courant de pensée le socialisme il am lu courant de pensée le le marxisme un am courant de pensée donc vous déggee parti parti euh, politique dañuy am lu ñu naan courant de pensée dañuy am lu ñu naan idéologie am lu ñu naan concept dañu am lu ñu naan state of mind état d'esprit donc loolu lépp ci parti politique euh, dafa am lu nekk donc euh, nit ki pour ñu ne dafa bokk fenn day am idéologie parti boobu munul bañ a am idéologie parti boobu ba pare na dafa bokk fenn donc loolu mooy laa wax laa dernière fois man leen ñi nga xam ne ils se réclament de Pastef et que doxeewuñu les pasteurs Pastef wax ñooñu ils se réclament de Pastef mais ils sont pas de Pastef comme le dafa bind alcorane sax mu dox ci ay courant de pensée alcorane dafa am courant de pensée dafa am idéologie amna ñi nga xamné tay buñ doxeewul ci lolu même buñ buñ réclamé wu musulman sax defu leen ay musulman donc lepp dafa am lu dajale ay nit dañuy dajaloo ci benn concept dañuy dajaloo ci benn philosophie dañuy dajaloo ci benn courant de pensée ci benn état d'esprit loolu moo tax ñu naan parti politique loolu aussi moom moo tax ñu naan diine que ça soit muy ne diine islam wala diine euh, christianisme wala muy euh, juif wala muy ne dañuy daje ci ay courant de pensée idéologie ñi nga xam ni loolu la euh, Ousmane Sonko xamale xamal la ne ni Pastef du ay affaire tarixa du ay affaire diine te bu mu ne bërët Pastef jóg am ñu ko doon dugal ci ay affaire tarixa ak ay affaire diine di wax naan ay wahabiste lañ di wax naan ay ibaadu rahman lañ et cetera et di ko bu buñ demee ba ci biir gis ay nit yi nga xam ni ñoom ils s'identifient dans ça bëgg utiliser loolu di ko bëgg a xeexee di ko xeexee tarixa yi kenn mënul xeex tarixa Sénégal senegal dëkku tarixa la dëkku tarixa la bu keneen amee fitu tey ubbi fa leneen ñu nangul ko ko loolu yi la neex Sénégal 90% des musulmans dañoo bokk ci donc bu fekkoon tey ji dafa am ay xëccoo tey ji am ñan ñooy ñàkk ñu ci ñooy ñàkk te loolu ñaanuñu ko yàlla doxuñu ci loolu ni Sénégal dëkk christianisme musulman etc. etc. nous cetera ñun ñëpp ñoo Le Sénégal c'est un pays laïque man best le plus grand et sincère ami c'est des chrétiens Mon plus grand ami samay ami yoo xam ne trahissent. ma wor duñ trahir c'est des chrétiens c'est des Paul Gomis c'est des Ferdinand Gomis c'est des Jean Paul c'est des Étienne nous sommes sama plus grands gagnants. te mu suñu histoire une seconde parce que jëluñu suñuy mbirum diine teg jëluñu suñuy mbirum diine teg amul divergence ay diine ñoo bokk doon ay sénégalais li ko war wàccu ma maintenant am na ñi nga xam ne ci seen égoïsme ci seeni mbonaay ñu ngay jéem a utiliser diine bi pour tas nit yi lépp luy tas man nanguma ko te lépp luy tas dama koy attaqué Sonko nag dafa xamale ne Pastef du ay affaireu tarixa du ay affaireu diine ngir yàlla jaxasekat yi taalkatu dëkk bi waxkat yu bon yi visionnaire yi nga xam ni yàlla sax bëggeewu leen nañ bàyyi di utiliser n'est-ce pas parti politique yi wala politique bi di dugalaal di ci roofaale ñoom seen politique maanaam de de haine bi ñu am ci tarixa yi wala bu am ci diine Pastef lepp nga ni Pastef amé lepp non la aussi l'activisme l'activisme lepp parce que Pastef génnul activisme l'activisme l'activisme. des courants de pensée activisme ay courants de pensée la idéologie la xex l'impérialisme. le néocolonialisme xex ñaawteef xex lu bon Etc. Etc. xex l'injustice. loolu moom mooy combat wu activisme ña nga xam ne nag dañoo négatif idéologiquement saa yuñ gisee ab mbir rocc la ca gën a bon jéem ko promouvoir pour yàq loolu ñooñu il faut ñu teel leen a xam tegee leen nële mu leer parce que ku bon mooy ku gis la baax la bëri la baax ci mbir ya nga ne ko fa ñukk rocc lenn li nga xam ni kenn nawloowu ko bu ko xeexee kooku je pense que da ngay nax sa bopp mais munoo nax kenn ci diine ni mu amee ñu bon ñi nga xam ne ci diine lañ woote muy l'islam muy le christianisme noonu la amee aussi ci parti politique yi ñoo xam ni loolu lañ woote noonu la amee ci tarixa yi noonu la amee ci ibaadu rahman loolu la amee ci wahabiste yi am na ñoo xam ni ay ibaadu rahman dañuy teg ay bomb laa dem exploser ay nit est-ce que cela veut dire que képp ku ibaadu rahman rek da ngay da ngay tegaate bomb est-ce que cela veut dire que képp ku yar sikkim ba mu gudd rek yow tekkatu bomb nga loo bu ko tubaab bi sax di ko jéem a imposer di leen wooye islamiste ñun dañoo taxaw xeex ko ne non non non c'est pas képp ku yar sikkimam képp kuy ku cëkkal tubéyam rek moom tekkatu bomb nga mais loolu tubaab bi di jéem a di ko def di ko wooye ay islamiste sax ñun suñu biir sax am na ñoo xam ne dañ ko jël di ko jéem a xeexee ñoom tamit boo demee xool tarixa murit fekk koo xam ni moom yàlla ci boppam moom am na ay nitam yoo nga xam ne ñi ngi ci biir islam di woote islam te ils n'ont rien à ak l'islam ñii di woote catholique te ils n'ont rien à ak christianisme loolu am na léegi bu fekkee ñooñu nga dem rocc kenn foofu noonu génne ko di ko promouvoir xool leen kii kii nee na lii la kii nee na laa la non tu es négatif yow yaa négatif parce que am na keneen ku ko gën fuuf gën ko baax fuuf di exemple te génnoo ko joxe te xam nga ni kii du royukaay te xam nga ni kii nawloo wuñ ko sax ca lam ne parce que kër goo dem am nañ cat waaye boo fekkee ab kër rocc cat ma ki nga xam ne moom mooy cat ma nga ñëw ne kër gi wax kër gaa ngi nii gis ngeen kër gi niñ mel gis nga kër gi ñii dañoo bon mais yow yaa bon yow yaay nit bu bon te nit yu bon yi ñu ngi fii ci suuf si di dox ñi fi di dox ay nit ñoy duggal nit safara nit yow nga ñi ci internet bi am nañ Facebook ñi ngi tudd Paate ñi ngi tudd Ablaye ñi ngi tuddu Issa ñi ngi tudd Seex ay nit lañ yu bono bono bon yo xamni duñ bàyyi kenn fi bugg nañ dugg safara te xam nañ safara lañ jëm mais dinañ wëri keneen ku ñu yóbbaale il faut beaucoup faire attention jóg leen ngeen xeex xeex nak shaytan du du nit shaytan nit la boobu ba légui ñi wax shaytan shaytan musul génn ñew taxaw kenn gisuko shaytan nit la tànk bu am tànk loxo nopp bakkan baat bëtu gémmiñ bu bon bu am internet bu am facebook bu am whatsapp bu am viber seytaan amul keneen koo leen bëgg yaakaar ni seytaan la du seytaan seytaan nit la ku moytu nit moytu seytaan ku moytu ku bon moytu seytaan ku moytu kuy jéem a jaxase moytu seytaan ku moytu kuy taal moytu seytaan ku moytu kuy féewale moytu seytaan moytu leen seytaane seytaane nit njaay la njaay buy wax jaxasoog yow guerre am na guerre mondiale am na kan moo ko créé seytaan kan mooy seytaan kan moo créé guerre mondiale ay nit nit moo jaxase nit bañ nit dëkk yëg dëkk ñiy far ñiy far ñi rayante bombe atomique wax buñ ko dooree ci ab dëkk dëkk ba seey kan moo ko def seytaan moo ko def seytaan kan la nit la seytaan nit la te shaytan dafa am xel des fois damay dégg ñu ne non kii moom eh, eh, eh, dafa am xel mais shaytan dafa am xel ku créer bombe dafa am xel ku créer bombe dafa am xel mais xel bu négatif la utiliser la négativité la utiliser pour ray nit ki créer guerre dafa am xel ki am ki créer arme dafa am xel ki créer poison bo xamne bu ko nit la lekke wala mu kii ko dé ko dafa am xel mais lan xelu lan la xelu négatif l'énergie négative on appelle ça l'énergie négative internet bi nag ku nekk nga fa internet bi deful kenn la nga doon internet munul jël ab nit sopp ko mala waaye munul jël mala soppi ko nit maanaam ku ne la nga doon nga doon ka réew réew na ba pare si internet bi day réew ka xamadi xamadi na ka ñàkk wor ma ñàkk na wor ma ku amul kilifa diine amul kilifa am na ñi nga xam ne dañoo jóg amuñu kilifa respecté wuñ kilifa faale wuñ kilifa jàpp ni ñoom te yàlla ba léegi wàccul wax ne yéen li ngeen ne mooy dëgg ñooñu dañuy ñëw dugg ñun diñuy jéem a gëmloo la ngeen nekk dëggul ñun lan ne ñooy dëgg ñoom lan ñu mën a prouver ne ñoom lañ ne mooy dëgg lan moo ñu mën a prouver sax ne ñoom est-ce lañ na nangul nañ leen ko est-ce que lañ ne nangul nañ leen ko ñoom ñii di critiquer na dina kilifa diine xale mu mu di saaga suñu tarixa yi ñun dañoo am tarixa dañoo bokk ci tarixa am tarixa te ñun ñeewuñu ñooñu ci mbirum jullite ñeewuñu ñooñu ci mbirum ci comportement ñeewuñ leen ñeewuñ leen ah ñeewuñu ñooñu ci liñ la de parce que dàq ñu ñoo julli dàq ñu ñoo wóor dàq ñu ñoo natt asakat ba pare ñun am nañ leneen luñ amul ñun am nañ ngëm-ngëm am na ci luñ ngëm luñ ñuy leeralal am na ñu jokk ci ay sëriñ yu baax a baax sëriñ yu maanu serigne yo xamni ci yoon lañ leen di teg ci diine lañ leen di teg man ki ma dëkkal chrétien la wallahi la azim c'est un exemple de christianisme il elle prie à longueur de journée vendredi du ko liggéey c'est une chrétienne vendredi du ko liggéey elle prie da ngay wax damay ñëw di wax ak mom sa fekk muy muy nekk ci ay prières elle prie à longueur c'est une chrétienne bu set du du elle a une pureté extraordinaire c'est une chrétienne attends où gis Zara Zara Zara tu dors je parlais de toi j'ai dit que moi j'habite avec une chrétienne qui qui prie à longueur de journée un exemple tu tu pries. Tous les, tous les jours. Tu travailles même pas le vendredi. pourquoi Parce que tu fais une prière toute la journée. Tu es un exemple. Je t'ai pas vu forniquer, je t'ai pas vu avec des gens qui sortent, qui entrent. Tu es une pureté. Je t'ai pas vu, tu as jamais menti, je t'ai pas vu mentir. Je t'ai pas vu parler des, des autres. es un exemple, machallah c'est ça, la chose, c'est pas d'être musulman, c'est de, se conformer aux règlements. Exactement. Merci, je te laisse dormir. C'est une chrétienne. Je, vis avec elle. Vendredi saint, du julli, le play Wallah Wallahi azim, je ko sais sax muy nalaw. Affaire yi, affaire du ay lamiñ, affaire yi la. qui chrétienne exemple le may nga gis respect bu mu am ci diineem et c'est une chrétienne affaire bi du loolu que chacun respecte l'autre que chacun respecte lu keneen ki gëm bu leen ñu forcer lu ñu doon ku nekk la nga doon loolu nga doon doon ko boo demee ba gis ni yow tarixa yitteelu la bàyyil tarixa nga dem ca la nga ne mais bul ñu forcer nit ñi yow la nga ne mooy dëgg ñee lu ñu ne du dëgg ba chaque jour nga jéem a rocc lu bon ca loolu noonu wala loo xam ne day woote loolu te du loolu di ko utiliser pour politiquer loolu pour ñaawal loolu munoo ko ñaawal bu leen doon explosé wu bombe du tax islam bon boo leen doon rey ay nit du tax islam bon boo leen doon allahu akbar laa ilaha illallah di rey ay nit di explosé ay bombe du tax islam bon seen mbon du bonal islam seen mbaax du baaxal islam islam fa mu newoon ma nga fa te nit yi ña ngay wax lu bon di def lu bon teeroo ba léegi yàlla wàccul changé virgule ci Qur'an seen mbonaay ngeen nekkee yépp yàlla wàccul ba léegi pour changer virgule ci Qur'an c'est parce que seen mbon seen mbonaay la seen jaxase yi ngeen doon jaxasekat yi ngeen doon seen jaxasekat la seen saytaan gi ngeen doon say saytaane nga des gens yoo xam ne duñu ay exemple de société ñoo génn léegi ci internet bi ñoo xam ne baaxuñu ci kër baaxuñu ci bàyyi bàyyi sax ci àll mala sax a leen gën ñoo génn ci Facebook bi yor seen portable di jaxase diine gi di tas diine gi di ko jaarale ci politique Ousmane Sonko dàq na leen xaraamal na leen nee na leen bokk leen ci moom wax na léegi leer na leer na képp kuy tilimal Ousmane Sonko génne leen ko ci loolu wax na lu leer naññ nee na ñooñu noonu man Pastef amul diine Pastef amul tarixa Pastef amul ay waaso Pastef amul ay régionaliste nee na Pastef c'est le Sénégal et les intérêts sénégalais ñoom ñooy dominer loolu moo boole Pastef loolu leer na keneen ku am sa mbir reewande ab sa tàppet toog ci internet di saaga lu mel ni ma saalikul ji naan mooy temple maçonnique xam ngeen ni kooku buy wax loolu di saaga xam nga ni dafa dafa dafa sori rek de parce que dafa làqutu tàppet la de kum neex boo toogee sa pooju ndey nag saaga ku la neex waaw picc la muy wax ci kaw garab ci taatu garab du ko non wala ci kaw garab ci banqaas du ko wax ci loxo xale bi de ab gone gu ndaw taxaw fee xamuñu sa baay ci diine xamuñu sa yaay ci islam kenn xamul la ci dara dara dara un spécimen de merde taxaw fële di saaga nga xam ni jullit yi dañoo jël tàbbal seen ñax ñun ne lañ daj pour teg masaalikul jinaan nga taxaw fee ak sab reewande naan ay masaalikul jinaan temple maçonnique la ci reewande gu metti metti metti la ñoo ñu nekk ay nitu safara lañ nag ay nitu safara lañ ay jaxanama yoo xam ni ku leen moytuwul dinañ la yóbbu safara seen dara baaxul du ñu ay combattant c'est des faux types ay faux types yu bona bona bon buy bëgg a yàqal sonko gëmuñu sonko sonko gëmu leen xamuñu sonko sonko xamu leen sonko li live bii mu def tey sonko dafa c'est dafa feebar dafa tawat boo leen gisee dafa góor góorgóorlu lool parce que cool yi dafa bëri lool loolu moo tax mu lu ñëw taxaw xamal ne eh, ñay wax seeni wax ñooñu ñoom la engagé de nawuñu Pastef de waxuñu au nom de Pastef waxuñu au nom de Pastef lu tax nag mayuma leen importance ña may waxal mayuma leen importance la may may importance mooy ñëwee dem foofu sax di leen bàyyi xel ñoom déjà keneen ki rek maa ngi wax mën a yow da nga ñi xoolal waxu jigéen yow da ngaa soxor yow lu ñu am ci vie man man mii di génn ay album di jaay muy jar man mii di taxaw ay de centaines de milliers de personnes di concert nit yi di tëb di dal di leen wax jaar leen gauche ñuy jàdd gauche jaar leen droite ñuy jàdd nga may wax ay waxu nit ay waxu siiw man mii def fi live am plus de dix-neuf mille personnes yu may suivre bërki saa yu may def live plus de yow musoo mille personnes musoo ko am te musuma ko bàkkoo parce que xam naa du sa du ñuy samay taalibe ñu fi ñëw fii di seetaan dañoo ñëw pour ay information ñi ñëw di seetaan dañoo ñëw jaaxle ci yow naan nan nga nekkee ku réew di saga ay nit nek sa tapet mo len yem ñew ñu pour deglu la de ils sont pas là pour toi boo lo ñum ñëpp dañ lay saga ay nday ni n'est pas intéressant n'est pas important amo jaar-jaaru demb amo jaar-jaaru tey ab tuxkatu yàmbaa nga nan ko sangara ga kese ñoy taxaw di manqué manqué respect ay ay suñu kilifa diine yi nga xamni tay ñom ñoo tek fi islam li ñu doon ñom ñoo ñu ko def mais un peu de respect quand même ñi ñep ay tapet lañ ba paré ñi fogg ni nit yi parce que ils sont intéressants et importants muy wax waxu nit. oui man li am ci nit suivre tu es malade ou quoi man damaa mës def live te amul ay mille quelques personnes may def live muy am ay personnes ay neuf personnes ay dix personnes. sa papa boo boo boo booloon yow ak sa papa seen waa kër seen leen live mun leen am am personnes Mosul leen ko am sa giiru dund ngay wax ngay wax type là di wax ak xol tuh kot nan kot sàngara gi ki warna taxaw di wax ak nit yi ki ba nan ay islam nan ay la ilaha illallah yalla ay vrai shaytan ngi ni ay vrai faux type de merde nu sàngara la yor ni ap sangaram la yor ki def def nak nan ko tu sangare yi ñoy taxaw di di ay ñoom Serigne Touba di sag ñom El malik xol leen bi sangara gaa ni ndur lañuy def man di tux qui c'est des exemples de société qui sont qui sont na ko qui lan la mën a apporter Sonko kii bu ko n'a rien à voir tout yàmbaala Ils ko c'est un gars perdu bu perte bobby bi tasaaroo xamul fu mu teg de amul bob amul il cherche que des vies no c'est euh, malade donc a ni problème yeen ñi naan da ngeen koy bàyyi xel parce que mi leen idéalisé sa mi ngi naan man sama live dama am dama nit yi dañ may seetaan yow da nga yow da nga perte ken seetaanu la <laughs> c'est des malades ay na kenam la yor ni de nduru lay def yeen di saga ay sëriñ sëriñ Tuubaa nangam taan jabar la am ñi ma gis ko sax muy dem bay saga au delà des khalif di saga khalif généraux di saga serigne sambay saaga ay Serigne Sambay di sam di saaga ay ñoom sëñ Moussa Ka non mais mais mais non mais non mais non mais c'est parce que internet la nekk rek ah c'est internet lañ nekk xoola kii nee na nee na day day def ay laaj ñu koy seetaan day am ay 800 vues day am ay 900 vues 800 lay wax ak 900 ah. cet imbécile là de merde là tapette boo xam ci internet la ne wérul amul bopp j'ai sondé sa tête je l'ai appelé si benn débat dire bu ndaw pour xam kii ban genre mais dama ko xool ma ne mais kii c'est un perdu kii kenn waru ko tëj kenn waru ko dóor kii da ngeen ko war a jël yóbbu ko hôpital psychiatrique ñu ñu defar bopp bi il a des problèmes de cerveau te lépp nag xam nga lan la du boy bi de il a Akhenaton derrière lui les questions yu muy posé yëpp c'est Akhenaton moo ko jël def ko benn fiisam di ko di ko parce que Akhenaton moo saaga diine islam dem ba ne n'est-ce pas Masalikul Jinaan temple maçonnique la ñii ñëpp amuñu bopp ay xaj lañu yu doon taxawaalu rek Akhenaton les a récupéré daf leen ay imbécile di leen yónni ñii dem di saaga ji euh, euh, xalifa xalif généraux yi ma ñàkk sama ndeyur wallaahi ñii nii genre yi boo leen leen jàppee ngir yàlla bu leen leen tëj bu leen leen dóor fait tout pour yóbbu leen ci ci hôpitaux yi ñu faj leen xool leen ay vrais perdus des vrais perdus quoi kee ngi tux yàmbaam kee ngi naan ay sàngaram ñii ñooy taxaw jàkkaarloo ak na dañuy wax ñii c'est des exemples ñii ay exemple de société lañ war nañ wax ak yéen yéen ñi war nañ ubbi seen ŋaam yi di wax ba foog ni sax nit yi dañ leen di seetaan parce que donc ils sont intéressant kii dafa am bopp kii bu bindee français kenn xamul lan la olofam baaxul kenn amul bopp amul genn non je l'ai appelé si benn débat d'idée mais dama gisee muy réfléchir ba pare xol ko mu wé yor ay wé yor akum jigen yor ay wé ma ko bay rak dama nga dag sa wé yi yaangi parler de l'islam nan ko top sangara yaangi parler de l'islam tux kotu yàmbaa nga da ngay tokh ba sa ba perte sa bopp bi tu parles de l'islam yow da nga yari wé gor du yar ay wé lolou yefu jigen la yefu bitch la dama nga dag sa wé yi gor du yari wé ma ngi yar moy yoy ñëw ben baram bu ndaw bi mu yar ko ni non dangay ngay xool xam ni ay vrai bitches niggas ñoo nekk fii toog di di fooye yàlla yàlla sax la ñuy fooye yàlla fooyetuñ ñoom dañuy utilise charia ak sunna parce que dañ nan la ay farata sunna charia nangam mais ñoom amuñu lenn lu chariatique day tux yàmbaam naan sàngaraam ñëw naan la charia di saaga kilifa diine yi même l'islam dafa baniir kii même l'islam da na baniir ñoom def leen a rëbb barke alquran kii awma jotom taluma ko du ma moroomam ci saayir du ma moroomam ci baatin du ma moroomam ci dara dara dara bu dee siw ci bu ñuy siw moom moom mi si boppam siw gi moo tax mu xam sax samay saaw naan ñi la doon tàgg démb ñoo la saaga tey xam sax lu genre fan si bu doon topp ci ay wax la maîtriser wu ko sax ñu la doon ñu ma doon tàgg démb ñoo ma saaga tey donc ay ngay xool xam ne ay fans lañu woon ay fiis yoo xam ne dañ la yàgg gëm dañ la yàgg a mandi di ci say mbir ñëw taxaw ya ñun ñoo leen défar défar défar lu am kus neew lu baax ci ñom ñun ñoko défar du sen papa yi du sen yaay yi du sen papa yi du sen yaay yi Abdoul bàyyi no saboté ngay di saboté lo <laughs> la ben affaire nga ñaar non Abdul sama gan la day togn rek moom xamna ni rappeurs yi ña mba bari yàmbaa bari bariwul dañ leen di fenal rek man ma ngi ni rapport la duma tux ya mba duma nan sangare cigarette sax duma ko tux kenn gënuma lisi te ñoon la amé ñuma ma gën fuuf cannabis du tux du naan moo dàq julli Ali Yacine waaw DJ Mef du tux du nan du tux cigarette moo dàq julli Ali Yacine lo leen di jaay ñu yi di ay nit am di ay kilifa am ñi am ñaari jabar ñi am ñetti jabar ñi am ay dom ay domi yu mak ñi di leen yobbu école di fay ay scolarité lepp rapport du ñuy gore

du ñu tux du ñu naan ña cay tux du naan di naan sax bëriwut pour te dire bëriwut ay julli kaata lañ ay julli kaata ay njulli kaata laa la wax ils n'ont absolument rien à voir ak fàqmaan yi nga xam ne ci internet bi lañ leen déggee démb ñu commencé ñëw bëgg a tilimal daru Sonko léegi nag Sonko leer na képp kuy def lu bon képp kuy wax lu bon képp kuy tilimal bu leen ko boole ci compte Sonko Ousmane Sonko wax na lu leer nee nañ moom Pastef lii mooy ay réglement am Pastef ci ay idéologie la ñuy dox Pastef ci ay concept la ñuy dox Pastef saagaloo wuñ te saagaloo wuñu te saagaloo wuñu benn kilifa diine saaga wuñ te saagaloo wuñu benn xalif généraux saagaloo wuñ te saagaloo wuñ benn euh, christianisme képp kuy def loolu ça nangage que toi te ñooñu boo leen leen jàppee yóbbu leen faj leen ils sont tous derrière un faux type qui s'appelle un soi-disant Akhenaton Akhenaton sax ci rappeur lañ ko xamee woon Akhenaton du satan ab benn waaye bu foo bu nekk ci internet bi tuddee boppam Akhenaton nëbb boppam làqatu boppam wut ay cogg wut ay ay booy yum transformé ay robotiser leen di leen yónni dem leen saaga kee dem leen wax ak kee chaque jour mu génn ci internet bi saaga ay ndey amul benn effet nitu internet la amul benn effet ci àdduna du teg tànk Sénégal lijjantiwu fa dara wut ay coggam di leen jéem a foowee di leen jéem a foowee il faut arrêter il faut arrêter arrêter bu leen tilimal deru Ousmane sonk Ousmane Sonko àndul ci loolu tey àndul ci loolu ëllëg nekkul ci doxin boobu pour vous dire encore une fois gis nañ leen yéen ñëpp ngeen di wax dama kontaan bu ma leen gisee tout le monde parle de Ousmane Sonko tous les jeunes se réfèrent à Ousmane Sonko Wa ngir Yalla wa li di wax ni yëpp élection yi mbaa di ngeen voter man gëm na ni li di wax ni ni muy riiree Ousmane Sonko ni muy riiree ci net bi mbaa di ngeen voter mbaa di ngeen voter Ousmane Sonko man de budé li ni di riir ni moy voter Ousmane Sonko day gagner. bu nak 80% ay hypocrite gëmuñu dara ah du gagner. li may gis muy riir nii ci internet bi ñëpp taxaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko usman Sonko dama kontaan ba nga xam dama ne waa mais suba bu amoon élection moom mbaa Ousmane Sonko dina gañe wala mbaa buñ ko sàccoon adduna bi yëpp dinañ génn ah dëggal leen seen wax yi la ngeen di wax rafet na waaye dëggal leen seeni wax yi dëggal leen seeni wax yi boroomi xam-xam am mun na am mun nañ ne nit boroom xam-xam la seytaan boroom xam-xam la c'est que Sénégal dafa am ñoo xam dañuy jóg rek pour nax nii di ndeysaan ay vrai faux type dangay kii boroom xam-xam la mais boroom seytaane boroom xam-xam la ki taal dëkk yi boroom xam-xam la ki defar bomb boroom xam-xam la ki créé guerre boroom xam-xam la lan la fóot lan la féetale xam-xamam

damay dinaa la libérer mais sax xam-xam gi nga utiliser ko ci positivité parce que yow wolu wuuma la sax bàyyi ci askan. parce que yor nga xam-xam go xamni ni bu fekkee dafa négatif rek c'est négatif lepp lo def c'est négatif kon sa xam-xam dina la jox tay ne la bés boo fi ñëwaaté dina la dóor ci kasso bi. parce que sa xam-xam bi nga am ni dafa am solo mais bu négatif rek c'est tout nit mun na am xam-xam mu négatif manipulateur bi borom xam-xam la. et pourquoi vous essayez d'utiliser di nax sénégalais di fooye sénégalais qui kii borom xam-xam la. Hitler boroom xam-xam la dafa exterminer juif yi boroom xam-xam la arrêtez d'utiliser ces termes parce que naxu leen kenn seen bopp ngeen di nax boo yaakaaree ne yaa am xel ba mun a nax sénégalais da ngay nax sa bopp respecté leen sénégalais yi respecté leen bopp sénégalais yi respecté leen réflexion wu sénégalais yi ne pensez pas que yéen ëpp xam-xam yéen a mën a réeral askan wi yéen a mën a tromper askan wi kooku c'est yow kon ku gën a kon gën a dof mooy ku yaakaar ne mu ëpp xel nit yi mooy fu mu fekkee ñuy wax dara rek mu jéem a xool lu mu lëndëmalee lu mu tiit si foo qu'ils sont da ngay gis ñu am ay cent cent mille comptes fictifs ay comptes yu faux mais la ku dugg pour ku dugg pour dëggal looy wëri cinquante mille comptes ku pour dëggal looy wuti cinquante mille comptes da ngay ñëw génn sa benn compte man la Mollah Morgun awma beneen compte fu ma bindee man la nëbbatuwuma làqatuwuma la may wax daf ma daf ma leer nañ te dama koy assumer j'ai pas besoin de chercher dix mille comptes képp kuy def loolu seytaane seytaane moo am cent mille comptes seytaane mi ngi États-Unis ay comptam la fa bàyyi seytaane mi ngi France ay comptam la fa bàyyi seytaane mi ngi Espagne ay comptam la fa bàyyi seytaane mi ngi Sénégal ay comptam la fa bàyyi seytaane nga Dakar ay comptam la fa bàyyi noonu la propagé woo seytaane kese mooy propagé wu ci ay comptes yu bari képp comme l'esprit seytaan l'idéologie seytaan di doxee ci nekk benn doomu seytaan yow yaay am compte yu bari pour mun di tasaaroo pour mun di fen fii fen fële ne télémal fële sos fee naa fekk fii jaxase fële loolu moom mooy seytaan seytaan mooy doxee noonu moo yor compte fukki compte ak juróom ñaar képp ku positif képp ku dëggu képp ko vrai du dem wëri cinquante compte Akhenaton a dix milliards de comptes un faux type boo kenn xamul qui vient de nulle part un vrai imbécile de merde di saga suñu kilifa diiné yi di wut ay boy yo, am amuñu benn gëm-gëm toxkatu yamba naan ko sàngara moom laa leen woon ci ci photo yi un toxkatu yamba naan ko sàngara bu jog mu jël ko utiliser ko à ses comptes parce que amuñu bopp utiliser len ñi saga suñu xalif généraux yi di saga suñu diine kii ne neex naa utiliser kii bu ma ko téewoon benn benn seconde léegi ma transformé ko léegi ma yobul ko ci jumaay jakkay ab tuxkatu yamba kuy perte sagom ab nan kotu sangara ay na ken kuy perte sagom ki tay bama ko jotone legi léegi transformer ko léegi ma dafar ko léegi ñi la ak ne toon soxla soxla wuma parce que xamne bu ñewon léegi ma lek xel ma amul ben xel xelu négatif rek la yor waxu négatif rek la yor mais genre xet gi nga xamni dañoo perte sen bop yi amuñu repère ñi ni ko mu na leen utiliser jox yamba mom ma ngay nan sangara bu paré mu jox ko joint bi dorna na yambaam bu paré mu jox ko joint tri tri paas la bu doré ñaari bu sniffé ñaar jox ko mom mu dor mom tam ñaar kii ñaar jox ko ñu nan sen sangara ñaar ñi ñoo taxaw ci internet bi saga serigne yi ñi ñoo taxaw di saga serigne di manquer de respect suñu xalif généraux yi ay serigne Touba 33 jabar fan la ko tek fan la ko mayo do doo sa jabaru baye doo xool sa baay nan la def ba biiral sa yaay ba nga ñëw nekk sperme boo xam ne amoo njëriñ ci askan wi doo lijjanti loolu na sa yaay sa baay def ba juum ci sa yaay ba jur la yow mii nga te nekk benn espèce boo xam ni amoo njëriñ baaxoo woon nga ci capote ñu takk la sànn ci mbalit ngay génn nii doo jéem a lijjanti loolu lan nga def yow ba sa ba sa sperme baay rate ci sa yaay ba ñëw jur la doomu xaj go ngay wër di taxawaalu nii di ak saaga xalif généro yi doo lijjanti loolu sa baay def erreur war la woon wut capote capote deux cent franc rek mu wut ko dóor sa yaay ba mu naaw ba mu takk capote bi sànni ci mbali mi kon doo exister sa existence amul sens loolu doo lijjanti sa baay nan la def ba ba manqué deux cent bu mu jëndee capote ba indi la fi malheureusement nii nii ngay tooñ ak doomu jàmbur yi doo ko dem lijjanti ji loolu moo gën di lijjanti euh, so soxnay kilifa gi ki nga xam ni moom bu muy xeex bu muy xeex yow sa baay gis ko kan moo nekk sa maam ku ne sa maam lan la fi liggéey non c'est des imbéciles que les gens ne ni di leen suivre ñuy saaga ay nit j'ai des question lan moo tax Serigne Bamba am 30 ans jabar doo lijjanti sa baay nan la def ba raté sa spermam ba ba jur la yow nga taxawaalu ci mbedd yi nii yore sab sàngara ak sa yàmba ab sab saltewaay ab sa yar ay wee comme jigéen yéen da ngeen foog ni yéen a gën a nekk nit di tëg wala yéen a nekk ci internet bi yéen ay tapit internet ngeen muy c'est sûr bu ma daggoon léegi billet ñëw New York ne la wàccal doo wàcc barke alxuraan man kese man sama tuutiwaay te xoola boo ma ko ñimee ma je def défie ma ñëw léegi ma wàcc New York bu ñu ubbee frontière yi ma wàcc New York woo la nga ñëw ma ñàkk sama ndey doo fa teg tànk doo fa teg tànk ay booy ngeen yi nga xam ne nekk ci internet di tap di duul di sóob ak a wéyu wéylu ñun lu ñuy def ay preuve lañ de dama laaj Ousmane Ba bu mu fii dof dof lu bu mu fii dof dof bu moo ko fekkee Canada cocc la def déggatu leen ko fenn cocc bu muy ñëw naa ay police dama ko waaye dama nga woo gendarmerie nationale dama nga woo armée ñu wàcc ak maa ngi fii Canada muy wax ay waxu plainte anamu du maa ngi dox samay soxla anamu ñun ñoo leen gën a feebar fuuf ay Baay la ñoo leen gën a teng da ngeen di rek fa ngeen nekk noonu di saaga di saaga gaay man xolo ku ci saaga man maay ñëw man man man man bu ma wàccee boobu ma wàccee New York mu ñëw wàccal la New York jël jël billet dagg billet New York du ma la wëri say dëkk parce que nag ma États-Unis dafa réer mënu ma wër mun naa la jox ultimatum ne la kaay New York boo fa ñëwee ma lekk la da xam ne ñun nekkuñu fi di ragal menace ga ma defoon di def ko ba mu naan day dem woon noonu laa lay defaat du du ma kuy ragal ma xolal sëñ ba jaral na ma ko manque de respect bi ngay def sëñ bi jaral na ma ko bés boo ko defee ma wàcc New York ne la maa ngi fi boo fi ñëwee ma warax la yow billaahi wallaahi ma warax la te maa ngi lay menacé jëlaatal bii nga jox ko waa lu euh, euh, euh, mu tuddati gouvernement américain bi comme Ousmane Ba boobu la noppi moom ak yenn journalistes yi yabaate yi ak astafurlaas ay yenn si internet yi yabaate yi réew yi nii dagg ay affaire lii lañ fi defoon bu Ousmane Ba di dof-dof lu bu ma ko waxee mu ne cocc ñu naan ay Mollah Morgun lañ ko porte plainte est-ce que duñ ko jàpp gars yi di def ay fetal mais dangeen ma yàpp xanaa dangeen ma yàpp xanaa yéen yéen xamu leen ma xanaa yéen may bëgg a fontoo wala waa ji taxaw ne moom dafa bind plainte ana plainte am est-ce que won na leen ko est-ce que photocopier na ko est-ce que photo na ko wonu leen tous ngeen di jël sama tur di ko jaxase ak ay nit di jël def photo def photo di fa dugg ay fetal ni ni ni Mollah Morgun dañ ko porter plainte ah, duulu leen yéen ñëpp da ngeen a fen ana ana plainte bi ana plainte bi kat di leen fenloo balaa ngeen dem di bind ne kii def ko plainte da ngeen koy laaj ay information ana plainte bi ana plainte bi wonu len plainte et vous osez écrire d'utiliser utiliser sama nom nan ay ki rek ko plainte ak daka ana plainte bi doulou len yen ñep doulul ngeen doul ana plainte bi anama dañ ma lonk mënod yi anama du maa ngi dox samay soxla di wër fuma neex arrêté seen affaire yi imbécibilité bi mooy site yi jéem a jaxasee ko bind ko fen man bu leen utiliser sama turi ci yenn ñàkk fayda yooyu de nekkuma ci internet bi di saagante ka ay ay golo golo yooyu noonu booy di def nii ma gis fu mu ubbi ci nag bi gis kii di saaga kii nday kee naan ko sa nangam tàn nday kee ko nangam ñii ñi ñuy tibb di di ko teg man nekkuma ci yooyu képp koo xam ne mun naa jàkkaarloo yow damay jàkkaarloo yow képp koo xam ne mun naa damay jàkkaarloo yow amul kenn koo xam ne dinaa tibbal di la saaga ay ndey ku dul koo xam ne dama ko jox sama mbir na ko géral wala booy bi ñëw indi lii non da ngay gis da ngay da ngay da nga leen di yërëm sax quoi c'est du jamais vu ay internet yoo xam ay faux profil nekk ci internet bi di bandi loo ko yuuxoo ko nappaatee ko ay wax-waxi dof di leen di leen utiliser Ousmane Sonko a bien di euh, l'autre là comment il s'appelle Mourid euh, Mourid euh, Mourid lan parce que man doonu ma ko suivre quoi ci waxtaan bi laa ko xamee murit lan murit euh, jàpp leen ma ci tur bi waay jàpp leen ma ci tur bi hmm. j'ai utilisé son nom j'ai oublié son nom quoi mooy ki ki gars yi di tontu temps yi rek def nañ ni sax man dama koy tontu bon kooku noonu juste pour xamal ko kooku Ousmane Sonko tontu na ko ah Ousmane Sonko tontu na ko xamal na ko ni ñoo man euh, Pastef waaw ceddo ceddo Ousmane Sonko tontu na ko te yaakaar naa ni comprendre la message de Ousmane Sonko waaw Ousmane Sonko nee na ko ñooñu noonu man dama am ay idéologie am concept Pastef dafa am idéologie am concept Pastef dafa am nu muy doxee képp ki nga xamni doxé wo woo na Pastef doxé bokko ci Pastef yakarna ni loolu message bu clair la bo xamni mom euh warnako comprendre et que ñu jall ci lenen quoi sincèrement loolu nekul débat bi. ñi nga xamni dañuy saga na régler ak ñoom rek te bañ utiliser ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'a absolument rien absolument rien à voir ak affaire yoy non gis nga boy dañu ñak xorom ñak fayda ñak am ñak gatché yo xamni xol nani dañu monté ben vidéo dé ñom ñoko monté ni dé ragaluma kenn ku dul yalla tituma kenn ku dul yalla té lepp lu may wax dama ngay wax té yalla rek tax ñom ñoko monté ak akane ton ak gangam duma wax bay tit duma wax bay jàq kenn jommaluma te té buma ca deewoon santé ko yalla ndax dama wax dëkk dëkk dëkk jaam ba jaam yi tit jaxlé bu mbeus buma ca dé dem aljana man maa ko wax ba pare ñu def ci musique de ñoom la de affaire toon ak ay gaam jógoon na ma ak sa sëñ bi waxaat leen ko man du ma gaañ masare rek masare di tan rek bamba def bamba def ne ko ana preuve mu ha ha ha daf ma daf ban ban ban ne la ban mag islam sax même prophète donc ñoom ñoo def pour ni ñom mun nañ jaxase man sa dama bok ci tarixa de té lool la musa wax man duma yeen ñu amul wiruai, man dama wëru way dama gëm tarixa dama respecte islam dama respecte tarixa man ab murit la ab Baye Fall laa murit Baye Fall xam nga Baye Fall pour muy clair té kenn mënu ma ci dindi duma tux yamba duma nan sangara duma forniquer ma ma ab man ab murit sadikh la bokkuma ak yéen ñi amul wéeruwaay bokkuma ak yéen ñi amul wéeruwaay man am naa droit wax sama vision par rapport ak luy dox am naa droit n'est-ce pas wax ci sama la ma bokk bu ma gisee lay yàq vidéo bi bu ma koy def dafa leer nañ man ab murit laa bu am droit wax ci muridisme bu ma gisee ab yàqkat ma wax ne kii yàqkat la mu gisee kuy jaxase ma ne kii jaxasekat la mu gisee ku dul wax dëgg ma ne kii du wax dëgg boo jëlee loolu nag monte ñëw ne xool koy nax yow dangay ngay nax sa bopp yow amoo foo ngëm yow gëmooñu moo tax ngay wax ci ñun di ñu saaga mais man damaa bokk foofu ku bokk ci ku bokk ci euh, euh, euh, gétt gi kay naan ci meew mi ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi man murit Baay Faal nest pas am naa droit taxaw gis ni affaire ya ngay jaxasse gis ni affaire ya ngay indi divergence ma taxaw wax ak Gana masare kan Massaré du khalif général ab nit la comme man bu am point de vue di wax amna droit wax ak masare, Massaré bu ma gisee Gana Massaré telebi, ci bopam ci ben contexte bu tang ku nek télé bi TFM di len wo di jaxasse woo Gana Masare mu wax ngeen ne jërëjëf waay lu kii di nii ñi ñiy diviser ma gis ni ah ñii ñi ngi dem ci dérive ña ngay bëgg a jaxase islam ba ña ngay bëgg a tas diine ga ña ngay bëgg a diviser euh, pour mieux régner te loolu noonu day tax murid yaa tijaan yaa xaadir yi jaxasoo te loolu taxul jóg Serigne Bamba taxul jóg El Hadj taxul jóg baay Niass taxul jóg Limamou Laye ma ne ko Gana Masare arrête arrête li ngay def dérive yi arrêté ko waxal lu la woor waxal la la leer bàyyil wut tàccu ak ay yuuxu mu jaral la di wax loo xam ne mun na indi diviser donc il en faisait trop may murit ni moom am droit ne Gana Massaré tu en fais trop arrêtel na ngay doxalee arrêtel na ngay waxee wala xoolal liy wax liy di liy liy boole que liy diviser man am naa ci droit Gana Massaré di murit ni man ma am droit boobu ci <laughs> léegi loolu la jël na dagg monte man leen loolu dafa tuuti am na yeneen man wax naa foo murit am na foo tiijaan am na foo laayan am na foo xaadir am na foo prêcheur am na foo jullit am na lay ñëw pour diviser suñu islam ba ma ko gisee war cee wax dama koy def am ko def laay wax ko kan ngeen di jéem a nax monter say bir koy jema nax da nga ñak bop bo fokk ni bo mon bo leen fexé ba monter seen affaire da ngeen di nax ñeneen ñi <laughs> c'est pas possible ab mourid la bu ab Baay Faal bu ma gisee lay yàq eh ke day day bolé man ma wax ci contexte bo xamni ni yi ñi ngi taxaw naan ay ñom tam nañ leen indil ku wax ci ci tijaan ya xaadiri ne nañ leen indil ku wax mu commencé indi ay division ma taxaw wax ne ah ganna wax ji na rafet rek bul diviser bul wañi bul yokk bul xool say intérêt am na am na am na am na ay prêcheur politicien boobu noonu TFM ma ngay bëgg a diviser doomu aadama yi TFM ma ngay jaxase ma ngay woo tarixa yi kii wax fii kee xëcc fee kee wàññi fii kee yokk fële kee ñu commencé bugg a tas man may sénégalais di jullit war ci wax moo ko gisoon sax ci christianisme wax ci waaw bu dee loolu la ñuy jël ñoom ñoom seen bopp ñoom ci seen bopp loolu lañ jël pour bu ko utiliser loolu booy yéen ça va man mun naa leen yokkal leneen te wax naa leen ko boo leen bëggee am na yeneen am na foo xam ne wax naa parce que man ab murit laa nee naa demoon naa jébbalu ji ci ci ci cantaakun ni c'est vrai li may wax histoire yi vrai la ma ñëw xool gauche droite gis nañuy doxalee ma bàyyi ko fa ne ñukk dem sama yoon man li may wax ragaluma ko tiituma ko effacé wu ma ko bokkuma ak yéen yu foo yi nga xam ni gëmu leen ñu ba pare di ñu saaga suba ngoon gu dégg ba jëg ñun dañoo am tarixa sama waa ji dama am tarixa am droit wax ci tarixa dama bokk ci tarixa am droit wax ci tarixa bokk ci murit am droit wax ci waaye yow bokkoo fa amoo droit pour wax ci bokkoo fa amoo droit pour wax ci bokkoo fa amoo droit pour saagañu mais yéen ñii ñëpp ay tàppet ngeen sa ñëpp sa képp kuy saaga euh, euh, lu mu tuddati nekkoo Sénégal képp kuy saaga tarixa yi amoo fitu teg sànq Sénégal doo leen góor sax ay vrai góor jigéen ngeen ku leen xool dèjà booy boobu mi ngi yar wee ay wee ay wee góor yàlla buy të buy yar ay wee yu gudd xanaa da nga ko bëgg a émaay fuddan góor doo góor yàlla wal da nga koy pédicure ko jor tux sab sàngara naan sab naan sab tux sab yàmba naan sab sàngara ñëw taxaw na da ngay wax ak góor yàlla yi xam nga seen yi nga def yëpp yëfu tàppet dëgg la da nekk ci internet bi di wéyu wéyloo ko bandi bandul rek boo leen góor yàlla bu dee seen yaay ay góor la jur yuñ xarafal tëdd xarafal jongal leen ñëw leen ngeen wax li ngeen di wax ci ci biir ci kaw ci kanamu góor yàlla yi ngeen génn seen néeg yi ngeen di yuuxu noonu bu dee ay góor yàlla ngeen bu dee dañ leen jongal bu dee ay xarafu leen ngeen wax ñu ko bu dee yéen mus leen jaar ci njulli parce que njulli néegu góor lañ koy woowee néegu góor mooy njulli looloo lay def góor bu dee yéen doo leen góor jongaluñ leen nekk leen ci seen internet boobu ak seen biir néegi di ratatati rek dégg nga bu dee ay góor yàlla ngeen ñëw leen lu leen teree dugg Sénégal lu leen ko fa tere lan moo leen teree dox ci town bi lu leen ko fa tere tàppe di ngeen doon imbécile xadi day tapé di nek si internet di di wéyu wéylu tok sab yamba, nan sab sangara def zuy ñak sab bop nek ci internet bi di la làmmiñ naan bala ma day nga yeen da ngeen yab yalla sax tok fu ngeen tok nan ko yore sab sangara tok sab yamba nan ay yalla, farata ak sunna su ma yow koo yab yow ko yab yow yàlla war na la yow man ma Kouassi Koulibaly bu ma ne woon yàlla ma gëm ko ñoom au moins ñoom yàlla jaral na leen ñu dee yow yow sa bakkandi bi ngay ngay ngay sàmm bu la ko jaralee kay ñëwal Sénégal bu la ko jaralee ñëwal Sénégal bu la ko jaralee doxal ñëw génn ci lay xam ni tàppit nga loolu bu ci kenn dajalee benn politique politique amu ci ay ay doomi xaram lañ am yu nekk ci internet bi di manqué respect suñu kilifa diine yi jeex na takk ay doome xaraamata njaay yoo xam ne ay góor jigéen lañ ay caapataan yoo xam ne ay yoo ko fuddanu lañ fi nekkee ay cog yuy juutu di joxe seen taat yi ñoo fi nekk yu ñoo ñu ñoo nekk ci internet bi ay duñu ay góor te kenn suivre leen ña fa dem nañ leen di saaga ay ndey kenn suivre leen ñooñu bu dee ay góor yàlla la man jëlee défi nañ ñëw senegal nañ ñëw Sénégal wax li wax kon affaire yi leer na bokkul ci Sonko bokkaanuñ ci Sonko ana booy boobu doon wax waxu vi naan yow da ngaa soxor yow dañ laa raw ñun lañ am ci vi kaay kaay xool vie yi vie yi day dem ba ay mille cinq cent on s'en fout ñun waruñuy vie bu ñuy teg sañu portable bi xaaral ñu vi man vie day dem ba président bi bu am ay cinquante mille vie président bu amee dix mille vie man damay am dix neuf mille vie ana booy bi wax waxu vie vi am bu gën a ngan huit cent la naan wooy vie luy vie kon nafati vi est-ce que vie daf maa xañ lu may dund wala lu may lekk eh, vous avez des problèmes psychiques et psychologiques dem leen faju ji booy dem leen faju ji te ngeen bàyyi suñu combat bi dem leen faju ji tàppe di ngeen doon buqat yi xaraamata njaay yi nekk ci internet bi di wëyu wëyulu tappet yoo xam ne doo leen mu ko gis ci street bi duñ mus a ci street bi duñ mus dox ci mbedd mi duñ mus jaayante seen bakkan nekk ci internet bi rek di wéywal saaga waaw leen saaga ñu kilifa diine boo leen génnee dañ leen di lekk lekk boo dee góobal ñëw leen ñëw leen Sénégal man sax ku ma ci dajal dama lay lekk man rek man man man man man taalibe bu bu néew doole bi man taalibe bu oyof bi ma ñàkk sama ndey ku ma ci dajal dama lay lekk dama lay warax parce que maa leen ëpp fit parce que lamay may def doo leen ko def loolu war na na fit déjà man la may def doo leen ko def fit bu ma am di nekk ci terrain bi di di dem fu ma neex di wax lu ma neex doo ko def yéen si internet bi ngeen ne buma len dajje ak yeen ngeen wax la nga yow yow xaw ma Moussa Camara xaw ba buma dajje ak yow man damay dox xam nga yow mëno buuse fa nga toog tok taper nga ba buma dajje ak yow beut ak beut nga ne Serigne Bamba 33 ma lek la ma ñak sama nday do ko yeggali dama lay dóor brick nga wacc man ma la ko wax te je te défie yow Moussa Camara jël ko nga jox ko États-Unis euh, lu mu tuddati demal nga jox ko les dirigeants demal nga jox ko euh, lu mu tudd ambassade dama la nga jox ko ñep man man mola morgan musa Camara je te mën la dajal tok ak yow wala ma gis la nga yey yabbi ci Serigne Bamba wala alhaji malik wala bagnes man ma warax la warax ma ñak sama nday kon dina deug sa maam de fer ba nga sedd mu diri la man sama deug yam amul ay deug etats unis ak ay ay deug Australie de senegal la yemale ak ñoy ñep sama deug deug lay doon fépp nak lama lay wax lol lay Boys, buma dajé ak yow te boko ñimé la la wax légui légui légui fin du mois septembre ma tak bagage yi New York New York ma def live surtout défi ma def live na Moussa Camara ñëwul nga dugg auto ñëw lo mëna a dugg ñëw ma la waxal ma def taal sama portable def live ne la waxal la ngay wax boko waxé ma ñak sama nday ma jaay la ma jaay la sama bakkan barki la ilaha illallah billahi wallahi barki qadimal mustafa la nga wax boko waxe man ak yow ma warax la buma la rayul buma lo dorul brik ma ñak sama nday la la xolal ma ma nek juif ma xatti sama diine gi ma bok ken du len gis faites le petit malin faites vos petits malin Nek ci internet bi di bande bandelu Sénégal moom tere nañ leen ko doo leen fa teg ci tànk amu leen fitam vous êtes sur le net nekk ay cogg benn imbécile boo xam ne ak anatoon benn xaju xaram boo xam ne tekkiwul dara benn vrai cogg suñu kilifa diine ñun ñoo ñu def lu ñu doon ñun bu ñu xamee islam c'est grâce à Serigne Touba bu ñu xamee islam c'est grâce à Baye Niass bu ñu xamee islam c'est grâce à Seydou nuru bu ñu xamee islam c'est grâce au Tijaniya ñun yéen kenn nit yéen xamul islam ci leneen yéen nan ngeen mën a manqué respect ñu kilifa diine yi te yéen seen baay xam islam ci ci ci ñi may wax nii seen baay xam seen maam xam islam ci ñooñu yéen ngeen di nit yu foo xam ni xamu leen dara génn démb naan day doo kan la ci maamam nekk yenentu kan la ci yéen ñii di wax naan ay man yàlla ak farata sunna su ne kan la ci kan la ci maamam nekk yonent seen xeet gi yëpp amul dara lu dul ay ay caddo yu bon la seen maam yi nenoon ay toxumkat naan ko du sàngara la seen maam yi doonoon ñoom bàyyi ñës ñëw sang seen maam yi sëriñ Bamba ñëw laab seen maam yi ñoom limaamu laay ñëw sang seen maam yi moom set wecc tijaani ñëw solal leen ay yére yi set wecc ñuy dox tey ngeen ñëw doome xaj yi dund démb seen ak kapat yu turé seen bàyyi jur leen ci ay capote yu yu bënn ngeen ñëw taxaw tey di manqué respect ñu xalifa xalif généraux yi yéen ay ñan yéen vous kii tapet yi ngeen doon toog ci internet bi rek di mbow mbow yi yéen bay xaj seen baay yëpp ñoom Serigne Touba leen defar ñoom Alaaji Malick ñoom Limaamu Laay ñoo leen def lu ñu doon seen baay yi duñu wax loolu seen maam yi duñu wax loolu parce que bi leen fekkee ñu doon ceddo ñu les xalif généraux ñii ñi nekk kër diine tarixa yi ñoo leen def lu doon ku gëm ak ku gëm sëriñ ak ku gëmul sëriñ sa baay wala sa maam euh, tarixa yooyu leen def luñ doon bu du woon tarixa yi ñu torox tarixa yi ñoo lépp Sénégal tey bu amee stabilité yi tarixa la bu amee stabilité tey tarixa la bu ñuy dem bay wax islam tarixa la Sénégal waaw bu muy metti bu muy metti ñun gis ñu seen bàyyi de bu fii bi di metti fii kilifa diine yi lañ gis te duñ nangu kenn di leen manqué respect kenn kenn duñ nangu kenn di leen manqué respect ñun suñu bakkan yi mënuñu ñoo gënal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi def lu tax ñun ñi mun a dox li tax tey ñu mun a wax kan moo jihaat jihaat kan moo ko fi def El Omar lan la El Omar jihaat la def ñom bour sin ñom mabba jaxu mabba jaxu ba ñom ñep ci ay tarixa lañ bok yeen ñeen di wax waxu jihad ñi def jihad sax ci ci tarixa lañ bokkoon mabba jaxu ba elage Omar ci tarixa lañ bok te ñoñu ñoo fi samp islam ci jihad lañ jaare ci jihad la wax jihad yeen ñima wulen ko tarixa mo def Senegal, tarixa mo tabax senegal quatre-vingt-dix pour cent des musulmans dañoo am fu ñu affilié wu kenn mënu ko dindi du ay spécimen yu démb juddu démb tekkiwuñ dara ci kaw suuf ñoo ñoo ñoo mën a changer loolu vous êtes kii yéen yéen fuy ngeen ah juddu seen Bangladesh yi commencé lang rek ngeen foog ni yéen jàng ñaari sorat ak benn benn lu mu tuddati hadis rek commencé ratatati lu leen def jullit ku leen ne yéen ay jullit ngeen kan mo leen wax yeen ay jullit ngeen lan mo ñu woor ñun ay cogg ak ay ñu judd démb ku nekk commencer di bandi bandi sol sa ben grand boobu jàng sa ben ben ben sar bo xam xamoo sax lan lay signifier tek ci ben ben hadith commencer ratata ku ne di saga xalif généraux di manquer respect suñu kilifa diine yi vous êtes qui vous êtes qui yeen tàppe di ngeen doon ay nitu internet kese ngeen ku leen xam ci internet leen xamé ña ngay gis ñuy manqué respect suñu kilifa diine amul kenn koo leen teg bët ñoom ñëpp ci kaaw bi lañ ne. ñoom ñëpp ci kaaw bi lañ ne te ñoom fóotib yooyu noonu ñoom fóotib yooyu sax ñoom ñoo. mu def noonu di leen ah. et puis di xamal ni Sonko a trop bien dit il a bien dit et séparé le le vrai de l'ivraie lu dëggu leeral na ko bu kenn jéem a xool noo Sonko nee na mi ngi ci Pastef nee islam mi ngi ci Pastef nee christianisme mi ngi ci nee na waaso mi ngi ci biir pa lépp mi ngi ci biir Pastef Pastef xaj amul xaj ak seen point amul xaj ak seen képp kuy bugg a jaxase nag xool leen booyi rek amuñu benn background démb ak bërki démb tekkiwuñ dara dara dara dara ay vrai faux type yu taxaw saaga tibb kii jox kee kee jox kële waaw ci internet lañ bëgg dundee ci lañ bëgg amee tur ci lañ leen bëgg ñu xamee leen terrain xamuñu ci dara ay tàppet suusal lekk kotu day lañ ay vrai doome xaram man maa ko wax parce que bu dee mbedd ngeen di jaay ñun ngeen fiy fekk bu dee islam ngeen di jaay ak yar ak teggin ngeen fekk ñu fa mais bu dee tëg-tëg doo leen dara ay tàppet ngeen tàppet yéen ñëpp ay tàppet ngeen man maa ko wax ak seen i mille compte fu foo ay tàppet yu téegal ndayam ngeen maa leen ko wax ñu kat seen lëfal nday ngeen léegi ma saaga seen nday sax léegi pour muy clair parce que ma Baay Faal Baay moom day génn addiya seen job bu nday ak ne toon ak Moussa Camara seen cottu nday man man la Mollah Morgun da ngeen di jaay loolu léegi ma yóbbu leen sax ci dimension boobu léegi man dimension mbedd ñu génn lépp nag parce que man damay damay saaga quoi waaw dimension mbedd seen job ndey ak ne ton yow ak sa sa gàngoor seen lëfal ndey man maa leen saaga te maa ngi ci kaaw bi léegi mun nañ gisante incha allah bu ma jógee fii damay ñëw Paris jox ma sa numéro ma ma gisante ak yow ñu gisante waaw man bokk maa ngi wax de tey maa ngi nii jël leen laay bi bu baax ngeen noté dans un mois damay wàcc ni France te bu ma ñëwee boo amee fit jox ma sa numéro non ñi dañ dañoo jar saaga parce que dañoo jàpp sañ kilifa diine rek di saaga léegi nag yar yar gi ngi leen di jaay yar yar googu noonu moo tax ñu ñime ñu xanaa xamoo leen dañuy saaga suñ kilifa diine yi ñun ñuy seetaan léegi nag le fait que ngeen di wax na non bu leen leen saaga non léegi nag ñoom loolu la ñuy jéem a amee doole dañ leen di wan ne ñun ñoo leen dàq saaga dañ leen di wan ne ñun ñoo leen gën a nekk tëg bu dee wéyu wéylu ak am fit rek ñoo leen ko ëpp pour muy clair quoi ñoom laa saaga saaguma benn kilifa diine je respecte dama bokk ci diine jokk ci tariqa ab imbécile bu taxee fee di saaga sama sëriñ di saaga samay kilifa diine moom mu ne daqaar sa ndey danaa daqaar sa ndey yow yow yow Akhenaton maa la ko wax bés bu ma la tegee bët dinaa daqaar sa ndey man maa la ko wax te dinaa ñëw pari nag incha allah le cinq septembre dinaa ñëw Paris jàppal lool le cinq septembre boo dee góor yàlla wax ma foo nekk moo fa jóge dinaa jugaat New York incha allah le 5 septembre à Ganeton. ngi Paris incha allah bu dee góor yàlla nga la wax ñeme ko ma taxaw ak yow nga ne nga ne nga ne Masaalikul Jinaan temple maçonnique la ma wàcce la loolu leer yow tam maa nga lay menacé dama ne Akhenaton yow mi nek ci net bi ñu naan lu xaw lan Seck Ousseynou sec man Mollah Morgan maa ne bés bu Paris le 5 septembre dina la def signe jox ma sa numéro bu ñu taxawee nga taxaw nga ne nga ne ak nga nga ne ma saalikul jinaan temple maçon ma daqaar sa ma daqaar sa ndey laa la wax barki alxuraan alxuraan laa la wax na waay yéen ah, dafa yomb waay ay doomi xaram nekk fii di saaga suñu kilifa diine di leen manquer respect bu pensé que doomi xaj ay imbéciles yi ñàpp seen ndey lañ dem utiliser leen ay ñu tekkiwul dara ay doomi xaraam ay boo yoo xam ne ñii New York lañ ne ñii France lañ ne ñii Australie lañ ne nekk ci internet bi rek di di bandi bandulu man man man Baye bu ndaw bi sax ma maay alu seen kaw waxuma laa Baye Fall yi tañ man Baye Fall bu ndaw bi rek yéen warul jarul jarul sax ngeen di ci senegal jarul sax ngeen di ci senegal man kese ma firnaal leen man kese jarul ma dem jëli yeneen Baye Fall yi de waaye bërki dem laa jógee New York eh, jël dañuy dañ lay tardel sax da ngay wax ñu la ñëwal fii ñëwal fii nga dem fa doo leen sax gis ay tàppit yu tegal seen nday lañ léegi man man yéen ñëwu leen man may ñëw doom ak xaraam yi léegi ñëwatu leen sax gisoo ñaar ne ñëwal New York ma ñëw New York lëfal ndayam moom gang laa la fay wàcceel wala ma ñëw ñàpp sa nday ñëwal New York boo ñëw ñëw bërki dem laa jógee ne bu ma fa ñëwee tan dara doon ko def tàppet yoo xam ni talu leen sax nit léegi ñëwatu leen Sénégal légui man maay ñëw sax man maay ñëw di ñap sen nday maay ñëw di Dakar sen nday benn par benn légui pour muy clair dina ñëw New York mais le 5 septembre je serai à Paris ton la fay fekk mom moy sen papa man je te défi bo ñëw ma Dakar sa akana ton yow la la wax man mola morgan le 5 septembre je serai à Paris inshallah allah nga jël sama numéro wala nga jox ma sa numéro xaar ma xaar ma xol sama numéro whatsapp bi sax nga xam mom numéro Paris la yor mom la fa yoron comme ça nga japp ko ngeen jox ko Akhenaton le 5 septembre je serai là-bas bés buma ma jàkkaarloo yow nga am lo wax ci mouridisme wala ci tijani wala ci xaadir wala ci layen wala ci ñesset ma dakar sa nday man maa la ko wax yow Akhenaton tapé di ñap sa nday ngeen ni ma def nu Ousmane Ba bam ne tek non la ñëw defar lok nga ne tek paré lay tok di yar di dakar sa nday yow Akhenaton man maa la ko wax ko fi sagaté suñu sëriñ di dinaa tot sa nday doome xoj meram. yéen respecté ngeen ñeen waaw ah, joxe sama numéro yéen da yéen ay nit ki nii dañuy alu de dañuy alu, laal ay nit lañ dañuy alu bo laalé suñu ngëm-ngëm dañ lay faat naar yi sax ñom dañoo dépasser saga seen ngëm-ngëm ngay laal ñu tal bombe pour muy clair naar yi naar yi ñoo ñu gëna gëm ñom ñom seen ñun dañuy saga ñun saga lañ yor ak jàkkaarloo ak yow door la barre fer yi da ngay saga la Charlie Charlie Hebdo Charlie Hebdo luñ def dañoo saaga prophète bi naar yi dem sénégalais du fa taxaw de sénégalais boo xam ne dañ lay saaga nga saaga ñe bàyyil saaga yi moo tax sénégalais du mus a taal bomb du ko mus a taal boppam du mus a saaga sax dañ lay calmer kenn jarul leen dara seen bakkan yi rek kenn jarul leen dara nit yi taxaw di saaga sa sëriñ ngay saaga ñe ne bàyyil saaga yi naar bi moom saagawul moom moom dañoo saaga prophète bi mu dël bomb explosé yow doo ko def de yow mi naan bàyyil saaga yi doo ko def de parce que jarul mais man jaral na ma ko loolu sa dimension la je respecte yow saaga woo sa dimension la man ku saaga sama sëriñ manque respect sama bu ma mënee Dakar sa ndey naa Dakar sa ndey pour muy kooku yow yow la yow engagé bu ma kenn wax bu saaga loolu yéen la ku yor sa tàppet wala gëmoo sa sa sëriñ wala gëmoo sa tarixa wala gëmoo sa diine yow jaralu la ko mun nañ la saaga ngay toog rek naan yàlla baax na man du ma man du ma dund ci yàlla baax na de wala ay noo dama ne ku saaga sama sëriñ lu ma mun dinaa la ko def man maa ko wax damaa am sëriñ gëm ko fonk ko naw ko jiital ko dama bokk ci tarixa jokk ci tarixa gëm sama tarixa gëm ni ci dëgg lañ ma lañ lañ ma yar gëm ni ci dëgg lañ ma yar damay aalu comme ñëpp mbëkk gën taxaw waaye yow Baye Fall bu ndaw mooy wax ak yéen mooy wax ak yéen man new ma Sénégal di leen menacé de maa maa ngi ci kaaw bi sama numéro whatsapp France bi pour Akhenaton ah c'est pour Akhenaton bu dee góor yàlla nga maa ngi ñëw la 5 septembre Paris ma ñëwee nga woon ma foo nekk ma taxaw rek du ma ñëw escanté la de dama lay laaj dama la yow waxal la nga waxoon te vidéo laay def nag Sénégal yëpp di seede ñëpp di seede ma ne la waxal la nga waxoon boo ko waxee ma wàcc la jarul léegi duñ leen xaar Sénégal parce que doo leen mus a ñëw léegi ñun ñoo leen di wëri léegi man man Baye Fall maa leen di wëri man léegi man Mohamed Rami nekk ci internet yoo xam ne tekkiwuñ dara kenn xamu leen démb ak bërki démb man damay gis ay tur yoo xam ne ay ku ci nekk def ay live di ratatati ay ñu tekkiwul dara quoi non mais gars yi yëpp nañ sénégalais nag gars yi yëpp nañ ñu quoi gars yi yëpp nañu trop ku ci tux sab yàmbaa naan sab sàngara rek nekk ci internet bi di saaga sañu kilifa diine yi rek quoi te kenn naw ci Sénégal nag kenn kenn nekku ci Sénégal ñoom ñëpp ci kaaw bi lañ ne pour ñoom rëcc nañ quoi man maa wax loolu pour muy clair xam nañ lu tax ñi moon teg Sénégal de parce que xam nañ dof dofi dof yi dof yi keng yi ay taalibe keng te man <laughs> booy dama lay waxal dara de France googu noonu laa la wax France googu noonu waaw yë ñu jaruñu ko sax benn Akhenaton boobu jaru ko mën bu ma doon wàcc sax pour Akhenaton laa la wax du ma ko wàcceel benn ab junni Baay Faal yu kañ yoo xam ne Sénégal lañ newoon nekk ci kuréel yi yu dóor di mbëkk ñi nga par ñi ngi Paris di dox ñi ngi jaay kafe ñu ngi nangam gang googu laay dajale squat gang wàcc dajale leen ci ay waxtaan ne leen gis na affaire bi lan la sëñ Bamba daf ñu koy jaral tarixa dañu koy jaral Baay Ñas dañu koy jaral Limaamu Laay dañu koy jaral Seydou Nourou Tall dañuy koy jaral am na ab doome xaj bu nekk fii di saaga suñu sëriñ yi suba ngoon guddeeg bëccëg xam nga affaire bi lan la dañuy dem teg moom bu ma Akhenaton waxee fa ne ma wàcceel ko nu mu dee dee dee dee dee deux cent Baay Faal deux cent Baay Faal barke alxuraan deux cent Baay Faal samay rakk ak ñeneen ak ñeneen ak ñëpp ay gars yi teng teng laa la wax yu teng du waxantuwuma de ak ma suul sama ndey ay gars yi teng wàcceel ko gars yi waaye yow man may nekk ci kuréel yi man eh, Baye Fall ma nekk ci kuréel yi man ci kuréel yi laay ne kër Serigne Touba yi nekk France yëpp xam nañ ma dam fay dem màggal yu ma fekk yëpp damay dem ba fajar di màggal waaw di màggal xam naa junni Baye Fall ay Baye Fall yu nag laa la wax du ay Baye Fall yu tangantu de ay Baye Fall tëggkatu xiin yeeg jànkatu xasaay yeeg jànk ñoom ñëpp samay all maf ñoon ñoy nek ci jang yi ba fajar yor sañuy yor sañuy xeen di door duggu ci metro yi tangal ba bu ñuy ñibbi ba fajar di naani café ñi ngi ñi ngi fofu ak na ton day laqatu mais man bu ko ñëmé man ma ñëw dajal lolu woo ko ne duñ ko duñ ko wàcce de dañ koy laaj ne ko ah, ak na ton yow ab goor yalla nga répétal la nga waxon saagaal masalikul jinan ne temple maçonnique la bokoy def ñu la dafa yomb quoi lii moo tax senegal dara jaralu ko dara dara jaralu ko dara ñuy saaga sa diine di xas sa diine naar yi ñoom di boo saaga seen diine ñu exploser bombe yow ñu saaga sa diine même saaga sax boo saaga sax ñu ne bul saaga quoi ne bul ko saaga ne bul ko saaga léegi nag moom mu xam ne moom dalay saaga yow doo ko saaga léegi nag moom nag ñu jàpp ko foofu nag nga gis les pères de la morale les pères de la morale ku ne génn non bul ko saaga non dawal ko yër mande non raay ko yow foon ko affaire góor jigéen yooyu nekk ko ma ci de damay daqaar seen nday laa la pour muy clair jàppaat leen ko damay daqaar seen nday ñoom waaw daqaar seen nday laay def ay nit yu ñàkk teggin nekk ci bi rek di saaga aka ne ton saaga dajale ay boy yu togg yoo xam ne kenn xamu leen ña nga làqatu seen pooju ndey ay États-Unis ak ay France ak ay tekk fa di saaga seen sëriñ ñoom ñëpp génn nañ fii am ak dix mille faux faux faux xaw ma leen sax benn booy Moussa Camara di di saaga ay nday aka ne ton di seen benn groupe quoi waaw doomi xaj ku saaga seen sëriñ ma daqaar sa ndey man maa la ko wax kep ku fi saga lo bo mu bo mu na saga du murit de ti tarixa ku ko saga man buma la gisee dana dakar sa nday pour muy clair ak ne toon yoo laa wax yo sa gangor googu tapet yo nga xamni ngeen tassaro ki fi ke fe ke fe ngeen laqut sen nday yi di saga rek dama ne ken genn lan man kese ma len di wër ben par ben di dag billet ben le 5 inshallah allah le 5 septembre je serai à Paris inshallah allah dina ñew Dakar sa ndey nga man ak sama sama mbokk mbay fali dajale leen ñom ñep kep ku fi sagati kenn la la wax kenn ci tarixa mu tarixa la la wax ke mu nek ke mu nek man je suis le défenseur du du tarihaïsme que mu nek murit ke mu nek lion ke mu nek cadre ke mu nek ñess lu mu mën doon ku fi laal tarixa te nek ci kaaw bi di saga tarixa yi ak kilifa diini man ma Dakar sa ndey pour muy clair ak bo mën doon nak tapet mom du ñew ci kaw bi fekk leen ci kaw bi di Dakar seen nday ba pare ngeen di làqatu xana nak ko tapet bobu nak koku mu benen tapet la tapet bu ñew di nekk ci kaw bi di dox ngeen koy gis muy def ay live nan mangi ngi fii maa ngi canada ana kuy saaga kan, na kenn genn canada di saga tarxi ma daqaar sa nday canada laa nekk lu yom na tapet kay mom moy moy yeen yeen ay tapet yi yeen nekk ci kaw bi di saga mais man mi ñew ba ci seen ci bir kaw bi fekk leen fi di Dakar sen nday kay koku tapetul won leen ma fo leen ne ma ñew jox leen ma seen adresse ngeen wan ma fan ngeen ne xanaa New York moom mooy ngeen ñëw New York ma Dakar seen ndey ma dem Paris Dakar seen ndey foo leen mën a ne ma wër leen Dakar seen ndey man maa ko wax pour muy clair loolu leer na xanaa dangeen di daw ma loqati leen seen pooju ndey Dakar seen ndey man maa ko wax ku gëmul gëmoo ku gëmul tarixa gëmoo tarixa nga respecté ñu ñun ay nit lañ yu gëm tarixa ñun ay nit lañ yu gëm sëriñ gëmu leen sëriñ respecté leen ñu gëmu leen suñuy sëriñ respecté leen ñu yéen neen ngeen yàlla ak yenent bi ok yen a moom yàlla yéen a moom yenent bi yéen a xam leen lan la yàlla di wax yéen a xam yenent bi da ñun respecté nañ leen mais respecté ñu noonu tamit quand même respecté leen sañu ngëm-ngëm quoi moomu leen ñu nekk seen naa internet yi rek di menacé ka bandi bandi loolu dafa yomb tox seen i yàmbaa naan seen i di di saaga sañu sëriñ yi jaajëf peace peace and puissance fin de chapitre fu ne nak jëf a fi dess dootuma génnati wax de jëf mo fi dess ma ngi ni a ah, sama internet awma ma fu fukk compte sama compte nga ni kuma soxla ci ne bo ñëwee ma saga woo ma ma ñëw nga saga c'est tout le 5 inshallah allah agana don ma ah, ngi ñëw fofu nak bul daw de taper nga xamna ni do tontu do jege sax do ma jege sax dofoo dina jàpp la defal lolu le 5 bu dee góor yàlla nga yow dañ la jongal def ma signe jaajëf peace ñeneen ñi sax jaru ñuy yëngu yeneen Baay Faal yi ñoom Baay Faal yi sax dañ ma am missionné gars yëpp tarixa yi ñoo ma missionné nee nañ garaawul yéen toog leen rek yéen leen rek ma réglé leen ko toog leen rek toog leen ma réglé leen ko ñii ñëpp jàppee suusal yi nekk ci internet bi di baan toog leen ma géré ko man waaw man maay jihaad bi man maa jihaadal tarixa yi man maay jihaadal tarixa yi waaw man man maa taxaw rek soldat tapet yi fi nekk ñi saaga seen sëriñ yi saaga tarixa yi te waxuñu ñooñu garaawul mais man maa jóg pour jihaadal tarixa yi képp ku fi saaga ci tarixa duma fi génn laay boo bu dee góor yàlla nga def ma signe nga wax ma foone ma bañ a fàtte sax sama sama numéro France bi nga xam ne moo am na whatsapp pour gars yi bañ bañ a fàtte quoi bu ma kenn woo nag naan ma ay non ma laa saaga man boy boy man aw ma bomb bu ma explosé mais am naa barre de fer bu ma bu ma wàcc ay bu ma bu ma wàccewaatee ma kenn woo nag waaw ñoom naari ñoom ñoom jaral na leen ñoom dee seen diine mais sénégalais moom jaral ko tus jaral ko naada nix jaralu ko ko dañuy saaga sëriñam mu naan na bul saaga na bul saaga dañuy saaga sëriñam hmm? ay ay ñu tekkiwul dara di saaga sa sëriñ nga ah, na bul saaga na ki ko yërmande man man affaire góor jigéen yarewuñ ma ci de yarewuñ ma ci agana don jëlal plus 33 agana don jëlal pari rendez-vous nga répéter la ngay wax ma Dakar sa nday mako wax jëlal plus 33 751 05 37 66 góor yalla bi mom mom day joxe ay numéro am ba pare ak kanam gi da leer nañ day leeralal kanamam góor yalla bi du kat du tapet góor yalla baa di joxe numéro 30 plus 33 san 751 05 37 66 mooy sama numéro Baye Fall baa ngi nii lii mooy sama numéro jëlal sama numéro WhatsApp baa ngi nii bu France bi Akhenaton yow laa ko jox nag keneen ka ca kii nag moo amul amul du ma amal solo Akhenaton laa soxla Akhenaton wàcc ndayam une bonne fois mi ngi nii numéro baa ngi nii Akhenaton jëlal waaw ma ma tëgal sa ndey def ko live te xam naa bu ñu jàkkaarloo amoo fit boobu dooma xaj yéen ngeen defe ne Baay Faal yi dañ la tallu rek si internet bi ngeen ne di làqatu la ngay làqatu Baay Faal yi la tallu rek xanaa xamoo France junni Baay Faal la yoo xam ne bu ñu xamoon ni yow la nga taxaw wax la nga wax duñ la sax suivre bu ñu doon suivre ngay wax la nga wax ma ñàkk sama ndey dañ lay wàcce France am na Baay Faal yoo xam ne la leen sëñ ma jaral kenn jaralu leen ko parce que xam nañ tey bu ñu xamee diine islam sëriñ bee tax bu ñuy dox ci diine islam sëñ bee tax man de bu may dox ci diine islam sëñ bee tax sëriñ bi moo ma xamal diine war ki alxuraan man sëriñoo ma xamal diine man bu ma juddoo sama baay dama ko fekk ci islam mais dama ko fekk mu am sëriñ sama yaay dama ko fekk ci islaam fekk ko mu am sëriñ sama maam ma fekk leen ci islaam ñi am sëriñ waaw ma juddu ci loolu ba pare ñëw bëgg a saaga sama ngëm-ngëmu baay saaga sama ngëm-ngëmu yaay saaga samay ngëm-ngëmu ma ne man ñoom sama baay xamul dara sama yaay xamul dara sama maam xamuñu dara dañuy caaxaan man maa xam yàlla maa xam yenent bi maa nekk ci dëgg keneen ku newul ci dëgg foofu oh, yéen ay doomi xaj doomi xaram